màggal gi ñu ngi koy waajal incha allah comme ni ñu ko daan waajalee euh, dina am délégation yu bëri yu jóge ci àddina bi ñëw ndax sëñ Muntaxa dene nañ ko yaatal yëkkati kàddu suñu borom gi rek moom ko tax a jóg ak tasaare xam-xam ak yaatal xam-xam moom ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla gën koo dëgëral ba ba ba mu réussir loolu yëpp jaaxe Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam xam nga ni caravane bi tëj nañ ko barki démb caravane la boo xam ne sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba ala asari Cheikh Cheikh Mouhamadul Bachir tëj ko euh, ki koy piloté di sëñ Modou Mbacke si di jàmbaar moom it ren dina am une trentaine de conférences yoo xam ne tàmbali na war na ma ñaari fan bi caravane bi jeexee la tàmbali fii ba bisu màggal gi incha allah bis bu ne dana am ay conférences ci kàttanu yàlla euh, conférence yooyu ki koy piloté mooy cellule de communication ak culture ci njiital Cheikh Abdou Khadre Gaïndé Fatma ak en collaboration avec Rawdu Rayaahiin nga xam ni mooy euh, kuréel bi yor wàllu xam-xam ak ak yëngatu ak gëstu ak mbind euh, incha allahu bu ñu defee xew-xew bi nag ba ci suba ga cérémonie bi dana am cérémonie boobu nag étranger yëpp dinañ ci ñëw euh, teew ci ñu ñaan yàlla yàlla may ñu ni ñu duggee ci masaalik gi ci ubbiteeg masaalik gi ci jàmm yàlla may ñu ñu dugg ci ci jàmm génn ci alhamdulilahi rabil alamin sëñ Muntaxa yàlla gën koo taxaw gën ko sàmm xam nga ni daan nañ def ay euh, colloque wala forum waajale ko màggal gi waaye ren ubbiteeg masaalik gi daanaka dafa wut dafa dafa dafa dafa toog ci place loola xam ngeen ni euh, def nañ fa juróomi fan yoo xam ni juróomi fan yi 10 heures ci suba ba 2 heures du matin ay conférence série de conférence ni moo tax ren euh, activité bi ñu centralisé ko woon foofu la ca des yëpp nag doon fas ay waxtaan yoo xam ne moo ngi amee Touba ci kattanu yàlla incha allahu taala kuréel yi nga xam ne aussi ñu yëngatu ci wàllum ndox ak courant yaakaar na def nañ ay réunion technique yu bëri ak comité d' organisation màggal gi euh, ba rafet nañ jot ni ren incha allah benn jafe-jafe du am ci gani étranger yi dina am ay gan yu mag a mag yoo xam ne danañ ñëw ñoom ñëpp joxe nañ seen accord euh, di profiter aussi di remercier euh, particulièrement délégation bi nga xam Tchétchénie lañ jógee xam ngeen Tchétchénie réew mu sori la mu nga ca ginnaaw Moscou euh, waa bi mu àggee téléphoné na ma kontaan lool ni ma rendre rencontre président bi fidèlement wan naa ko photo yi yéemu na ci liggéey bi nga xam ni Euh, état tabax euh, liggéey ko ONG liggéey ko euh, kuréel benn kuréel international liggéey ko waaye dërëm ak ñaar dërëmu taalibe Sëriñ Tuubaa yi ak jullit yi moo ko liggéey muy mbir moo xam ne ñoom yéemu nañ ci lool kon nag moom ñu ngi koy defal mention di ñaan yàlla ñu dugg ci màggal ci jàmm génn ci jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah